dañu génn élection locale élection locale bu jotee day am ay candidat nit ñi ku ci ne tànn ki nga yaakaar ne moo ëpp njariñ ci dëkk bi man ma tàndoon ànd ak ñun ñi ñu tuddoon dañoo àbboon tur tudde ko coalition gox yu bees li ñu waroon a def pour gañe def nañ ko yàlla ànd ci ñu gagner ñeneen tàlloon nañu feneen yàlla tuddul seen gagner yàlla mooy joxe ndam élection jàll na suñu ginnaaw li nga xam ne population yi moom lañuy ñuy xaar ci ñun mooy fekk xombol fi mu nekk ñu yëkkati ko ba ñëpp seen ko loolu la magay dikk xombal ak ñi mu àndal foofu la ko xombal di xaar su màndaam jeexe man lu ma mën ci sama expérience sama xam-xam sama relation teg naa ko seen loxo ànd ak ñoom continuer ak ñoom pour que xombal ñu mun ko jox gëdd bi nga xam ne ni moom la mérité ci Sénégal ñi ngi ñaan yàlla loolu mébét boobu ñu am yàlla defal ñu ko man nag sama rôle ci xombal du rôlu xëccoo xombal awma fi lu may xëccoo dootuma fi amit lu may xëccoo sama rôle mooy jàppale ñi nga xam ne dañu am mebet ci xombal moo tax ñi ngi woo ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk jubluwaay ñu ànd bokk ndey bokk baay élection yi nekkoon suñu diggante ñu bàyyi ko ci ginnaaw dëtmal li nga xam ne mooy développement xomm